bi gis nañ ne ñu ngi privilégié woon encore une autre ville comme euh, Saint-Louis voilà ñu mandaté fa le premier ministre en tant que représentant du président de la République qui qui était en déplacement au Nigéria alors nan nga gisee euh, deuxième G boobu nga xamante ne posé nañ ko le régime actuel dans le cadre des journées de nettoiement. Euh, bëgg naa xam aussi coût bi lu mu ñuy dicté. lu mu ñuy dicté set setal yi. entre déplacement président bi ak ministre yi ci dem ci set setal yi entre ministère ya fay nekk ak représentant de l'état yi entre lañ fay tiire ci ay t-shirt coût bi ñaata la lu mu ñuy dikkee. Hmm. loolu bëgg naa ko xam pour ma xam ndax li ñuy def am na solo. Hmm. parce que bale moom wax dëgg yàlla pour man naa jarul hmm. tout cette mobilisation pour rek ñu dem set setal Saint-Louis. li ñu war a def amet ko def communique yee askan wi ba nga xamante ne nii waa Saint-Louis ñoom ñu xam ne ñoom ñoom moom seen dëkk bu setee ñoom la setal bu tilimee ñoom la tilima ñoom ñu régler seen dëkk bale ko ku nekk sa kër am nga bale nga jénn ñu daje ci koñ bi bale ko dem chaque jour ñu fexe non chaque jour chaque jour ñu fexe mu bañ a tilimaat déggoo initiative bi baax na digle gi baax na mais mënoon na yem ci conscientisation ci éveil ak ci mobilisation sensibilisation ba ñu ko saxal. pourtant ñu ngi koy def. bañ fa ci wax ma ne ma ne ma ne. fi ñu nettoyé woon. ca premier ba. Hmm. bañ delluwaat nga fa fan yi lu fa hmm. changé. am na fu tilim de. lu fa changé mais alors. kon bu ngay continuer di kon kon maanaam benn fan yi nga xam ne ministre yi dafaa war a ñëw rek lañu war a daje def seen xumbaay noonu nettoyé après dem ñibbi. mais nag am lu war a continuer la. d'accord que loolu également euh, en partie. Euh, la responsabilité incombe également aux aux citoyens et aux populations. mais déggoo ma ne la initiative bu baax la parce que mënul nekk fépp. non Bassirou Diomaye Faye mënul nekk fépp di bale tout le temps. mais Thior da nga may confirmer loolu laa la wax. Mhm. c'est-à-dire pour man jarul un premier ministre déplacé wu ba Ndar pour ñu nettoyer ko. Hmm. est-ce que comprendre nga parce que déplacement am dafa am lu mu ñuy coûter te dañoo ndóol dañoo banque li mu ñu daan fàttali tout le temps. Hmm. li ñuy dépenser dafa bëri donc pourquoi sensibilisation bi ñu def ko. mais la communion avec la population. non non attends. attends lum ñuy coûter il faut ñu xam ko ndax jar na ko. Hmm. bu fekkee dem communion foofu noonu nga jàpp ne si une manne une manne financière xaalis bu bari la. non mais bu fekkee dañuy dem communiquer foofu coor. Hmm. dañuy dem créer communion. communion boo xamante ne daf ñuy indil mm, euh, dépense boo xam ne mënoon naa régler benn matériel médical bu war a nekk ca hôpitalu Saint-Louis. bu baa am ku feebar matériel boobu manqué fa ba mënuñu laa faj alors que dépensé nañ ci déplacement bi lu ko ëpp ko jarati. Hmm. foofu laay waxee. c'est-à-dire que initiative bi lu baax la mais niñ koy defee campagne déguisée la muy gën a nuróol ak ay xumbaay ak mbumbaay. ci teewaayam foofu également yëkkati na ay kàddu wax ci euh, li nga xamante ne moom mooy la pêche. parce que mhm. Saint-Louis ku ne xam na ne c'est une ville de pêcheurs wax na également ci li nga xamante ne moom mooy gaz bi. ku ne xam na ne également découvrir nañ gaz entre Saint-Louis. et la Mauritanie joxe ay assurance le premier ministre Ousmane Sonko euh, ci ni mu waxee ak assurance yi nga xamante ne jox na ko la population de Saint-Louis nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel li di gaz bi di bàyyi xel également li nga xamante ne moom mooy la pêche l'activité prédominante xanaa loolu de moom looy rafetlu la amee. waaw waaw mais nañu xaar rek résultat yi xam man moom ay wax moom wax dëgg yàlla dama cee sonn ay hmm. dige. Hmm. non mais attends politiciens yi fi mës a jaar yëpp lu ne dig nañ ñu ko. Hmm. y compris moom. moom moo gën a politique sax politicien yi mu daan wax ne du politicien ah bon la lam fi wax ak la mu fi def ak la mu fi la mu fi jëf kenn da ko cee jëfagum 60 ba léegi man de hmm. gisaguma ko hmm. léegi nag kooku nag noonu man du du daf may wax rek ma jàpp ci wala ma gëm ko lim may wax kañ dama ciy teg sama bët comme j'ai l'habitude de le dire avant j'ai regardé maintenant je vais voir voir rek mooy tax ma gëm mooy tax nga waaw résultat laay xaar mais ay wax yu neex discours yu nice dajale nit ñi wax non j'en ai assez quoi li ma ci yor sama kër du jeex jarul sax muy discours ati man naa di ko jénneel ay discours am ci secteur bu nekk saa yu fa bëggee dem hmm. saa yu bëggee dem fenn bu ma woowoon man hmm. ne ma dama cee bëgg def discours dama naan ko jaru ko am naa sa benn discours boo waxoon ci secteur nangam yow demal rek nga teg ko foofu rek parce que mënatul wax lu ëpp lu mu wax ci li mu ci jot a wax gaz ak pétrole surtout hmm. wax na ci wax a wax a wax a wax a wax xam na ko comment xam na ko Ahmed bind na wala wala liiroo livre bi livre solution bi Ahmed est-ce que liir nga ko coor non Ahmed est-ce que lire nga le livre solution lu mu ci wax loo xam ak xam-xam hmm. bokkul loo bugg a wax foofu coor lu jëm ci wàllu hmm. métier bii ngay def hmm. ku ne mën naa am lu mu ci xam toog di ko ci développer di ko ci toj mais xam-xam bi nga xam ne yow moom nga ko ci am jàngi ko ba pare ñëw di ko exercer kooku mënu ko ci mais xaaral histoire bëgg a wax foofu au juste parce que dama bëgg a comprendre te ñi lay déglu aussi bëgg nañ comprendre amet ci xam ak xam-xam dem jàngi ñoo appliqué coor en parlant de Ousmane Sonko lan nga bëgg a wax foofu coor que ni Ousmane Sonko lim ñu wax ci pétrole bi yëpp loolu bu doonoon dëgg la te lu mu xam la te lu mën a nekk la te lu ci mën a def la hmm. kon dinañ bàyyi ba bërki démb di ko doo ko exploité mais exploitation yooyu nag amet excès guñ ci woon. non dama laa bëgg pétrole ay wax ne non dama laa bëggoon a wax ne yóbbu nañ ko pétrole bi moom ca nañ ko mu ngi ay pipeline ñu koy duy di yóbbu di yóbbu ca ca bitim réew. fi ñu jaay na ko. déet ak rakam ah, Aliou Sall loolu lañ doon wax. maintenant kooku bu xam-xamam yëpp ci lan la woon ci pétrole bi mooy xëy di jéem a démontrer ne Macky Sall sàcc na ko loolu la ci xamoon de saa yu xëyee di jéem di ci sosol Aliou Sall ak Macky sàll ak képp ku jege famille boobu noonu ne sàcc nga suñu pétrole loolu de moo ciy seen xam-xam fu ne ñu ne am na pétrole nag fu ne fu ne fu ne fu ne waa Pastef yi génn nañ nañu am na pétrole ci réew mi wax ci lu dul jeex te du xaaj loo xam ne sa pétrole bi liñ ci wax buñ ko nattoon ci litre pétrole bi tollul noonu wax nañ ko ci maintenant léegi ñoom ñoo ko yor luñ ñu ciy waxaat cest di dire coor xam nga lu ñu war a bañ ñun. que ça soit avec ces gars de la là que ça soit demee beneen gouvernement bu fi nekk que ça soit assemblée bu bees buy ñëw que ça soit maire bi nekk suñu gox xam nga lu ñu war a bañ. Hmm. bi nga soxlaa nga ñëw di ñu wax ñu jox la ba pare nga ñëwaat di ñu wax bu ji nga buñ la joxee. wax jeex na demal nga concrétiser la ñu doon wax. communiqué wul ak yi nga xamante ñoo leen fal foofu tamit euh, doo wax dara. non communication yaa ma gën a xam yaa ma gën xam li ma lay wax y a une hmm. différence entre communiquer. Hmm, et quoi. et des promesses. manoo di ma promettre di ma gëmloo gaz bi pêche bi ndox mi lépp li nga ci namm ak li mu fa mu mën a yóbbu sama ëllëg ba ma gëm la ne loolu yow man nga ko ma yëkkati jox la ko. Hmm. nga ñëwaat di ma waxaat li mu mën ak li may defal ak am naa ci yaakaar ak nangam ak nangam non phase boobu romb nañ ko. Hmm. lan ma ca waxoon kañ nga ko ciy commencé def. Hmm. heureusement que man dama dama leen a bàyyi mais man seen jotaay yi bu ma si doon bokk bàyyi Ameth non <laughs> les hommes politiques seen jotaay yi bu ma ci doon bokk. Hmm. mais je, je vais la question sëñ bi lii waxoon nga ma ko ci livre bi waxoon nga ma ko ci sa live tel. Hmm. cest à kañ nga koy commencer def laa bëgg nga jox ma deadline bul taxawaat fii di ma waxaat li nga ma waxoon avant ngay falu. Hmm. ban sens la am chaque fois nga digg ma digg ma digg ma dig ma ba ma jox la ngay continuer di ma digaat wala di ma di ma di ma dalalaat sama xel. amul benn njariñ on ah. perd du temps pour di waxaat li ñu waxoon ba pare. il faut qu'on avance on, on part dans notre mooy euh, naufrage immigration irrégulière moom fi bokkoon na ci talon d'Achille du régime bi fi nekkoon le régime de Macky Sall y a beaucoup de jeunes. Mm-hmm. des centaines de milliers de jeunes yoo xamante ne euh, traversé nañ la Méditerranée pour se retrouver en Espagne en Italie un peu partout n'est-ce pas en Europe en tout cas li ci gën a fës mooy ci ñaari réew yooyu Euh, ñu jàppoon ne peut-être euh, la question ou bien le problème allait s'estomper tout simplement ñu gis ne yàggul dara il y a deux ou trois jours voire même une semaine am na benn gaal goo xamante ni également suux na au large de la Mauritanie on parle déjà de près de cent morts alors euh, nan nga gisee incident boobu nga xamante ne ñëw na actuellement. Mhm. xam nga c'est malheureux c'est malheureux su ma ko daan wax ñu jàpp ne da nga faral Macky Sall Euh, question, la question sur euh, la migration irrégulière Irrégulier, clandestine. Mhm. Ouais. dafa war a nekk affaire u ñëpp dafa war a nekk affaire boo xam ne képp kuy porteur de voix képp ku yàlla may ñu lay déglu. Mhm. képp ku nekk ci ab gox. Mhm. boo xam ne am na géej. war nga fexe di sensibiliser ndaw ña fa nekkoon képp kuy exemple ci réew mi moo tax su pour laa ko ma doon wax les exemples de Bougane Gueye de Youssou Ndour et tant d'autres sa mm-hmm. ce de des milliardaires à partir d'ici sa koñ coor kër ya fa gën a rafet oto ya fa gën a taaru ña ko fay gaaree ña ko fa tabax jënnuñu réew mi la mm-hmm. plupart du temps mm-hmm. te ku nekk mën nga def constat boobu sa koñ seen soxna yiñ fi bàyyi seen doom yi ñu fi bàyyi ñun ñu demul fenn lan nañ ñu ëppale ba ñun ñëpp toute cette jeunes là bëgg a gëm ne il faut nga dem pour mu sotti c'est la pre première chose bu ñu war a jënne seen bopp yi. jeunes yi. waaw il faut ñu xam ne c'est possible à partir d'ici boo doon lim tous les milliardaires sénégalais. doo ma ci jënneel kenn koo xam ne à l'étranger la ko amee. où est le problème. ñooñu amee juddoo fii yaroo fii màggee fii yor karaw yu ñuul ñu ñun doon lekk ci ceeb bi di làkk wolof ni ñun amee ko fii. Mhm. ñun ñu bëgg a judd ci ab benn génération gëm ne mënul nekk fee rek. léegi nag loolu il ñu wax ko ndaw ñi ñu ñu xam ne mooy dëgg boo yaafusee fii coor. Mhm. xëy toog sa koñ di naan ataaya ba ngoon jot doo mës a am boo demee fee nekkee fa noonu doo mës a am. lii tax a am mooy li nga def tey si fajar xëy ñëw toog fii di ko ñàkkante ba heure bii ambulant bi di ko def ci tali bi boutiquier bi di ko def ca koñ ba bon bi di wër ci kër yi di ut liggéey bu am muy xëy di fa daan dooleem ba ngoon jot boole la ko neex ak la ko naqaree gëdd yaag yuuxu yaag yónnante yu jeex hmm. loolooy tax a am bu ma ko résumé lii ma la wax hmm. mooy jom fulla ak fayda doylu surtout alors la responsabilité incombe à qui. maintenant parce que phénomène la ba commencé yàgg. ça date pas d'aujourd'hui maintenant li tax ma lay wax ni yëpp. Mhm.